7 minutes de vérité 7 minutes de xamante de Glek Mongolal, moo canal 33 Leral TV comme nous l'avons jour J2 jour J2

Sonko doon fa ñëw ba noppi am ay affaires yoo xamante ne mi ngi ko doon séq ne boobu fa nekkoon di Adji Sarr ginnaaw loolu nag plainte bu mu gis ngeen ni que mars 2021 mars 2022 ba ci avril coowal Ousmane Sonko Adji Sarr moo lëmbe dëkk bi dem na ba nga xamante ni kii di ndeyu mbind li moom la Adji Sarr tuumal di Ousmane Sonko mais boobu ba tey gisuñu ko mu yéey ci yàbbi gisuñu ko mu weddi en tout cas bi ko ñëpp weddilee ne mosu fa dem Adji Sarr lu muy wax du dëgg moom moo njëkk de presse xam ne ni que daf fa nak ay nitam ñoo nekk ci réseaux sociaux yi depuis boobu ba di créer ay audio di ko génne ak bëcëk li ma leen di wax nak tay muy guerre des audios dafa am ay audio yo xamanteni ki di wa passef nga xamanteni dañu jëlone sen ay nit chaque fois ñu changer ko biñu démé ba jaxlé lañu jël ben guignol ben genre comédien bo xamanteni ap ab euh, mën naa ne dof la dof la dof ngeen bal ma ci wax bi dof la comédien la manam amul euh, lu mu def c'est juste pour distraire les gens nek ci ben wañ comme nit ñi dañ koy sétan di reetaan ndaxte wa passef ci bopam nee nañu ñoom xam nañu que kii lenn rek moo ko leen neex ci moom c'est un maanaam suy wax dañuy reetaan ba noppi nga xamante ni lépp lu muy wax dafa mën a yokk ku mën a sos la loolu rek moo leen ci neex ndax su ngeen fàttalikoo sax mi ngi fi xamal ni que yaayam bi mu koy am fukki at ak ñett la te moom na ñeent fukki at ñeent te moom toppul sax ci seen taawu kër donc muy lu doy waar mooy kaw xamante ni ay waxam jarut a dóor sa doom muy Molla Morgan yëkkati fi ay tuuma yoo xamante ni taxu ko wax ko xam na ni que dafa yor ay ojo yoo xamante ni ojo yu doy waar la jëm ci Adji Sarr pii boobu nag ëpp na fukki fan yoo xamante ni kii di Mollah Morgun musul génnee benn audio ci ay wax la yam ñu koy piégé mu dugg ci biir piège ci biir loolu nag laa leen ne Leral TV lépp loo xamante ni muy ojo authentique boo xamante ni am ngeen ko yéen ñooñu muy Mollah Morgun di Kay Fof di képp koo xamante ni yaa ngi defal live di défendre Pastef ba ci seen audio panel yooyu di seen groupe WhatsApp yi nga xamante ni deux cent cinquante membres yi ngi se audio yaa ko génnee lu tax ñemewu leen ko génnee parce que audio yooyu arrangé wul kii di seen leader di Ousmane Sonko

su ma duggee cabine ak beneen gor day foog ne moom lu may def loolu la ma kooku di def doo sax def ma ko man ne comme si comme si liggéey la woon boo xamante ni man damay naan est-ce que sax dëgg dëggalu ko ko dama nga comprendre imagine toi que Sonko dafa ñëw ba ji bi ma doog a na ko ñoo jël kooku même su ma duggee damay santé mer bi muy mer day mel ci kanamam dama koy xam looloo taxoon ma ragal ko

yéen man j'ai assisté si benn kër mu tëdd ak ñaari xale muy Kiya ak Khadija ci benn kër mooy jour bi mooy njëkk a gis jour boobu la aadu namtu ko ci man jour c'était le premier jour avec kii ma njëkk a woo Sidi j'étais Wakaam laa nekkoon man ak Amina Amina léegi mu ngi sëy ak Amina ñoo àndaat tànk ak tànk ba kër ñoom Sidi ne ko lii nag lii raam ci ñag bi la jëm kii ba pare dama defoon un parlo Sidi dégg la xale jigéen ñi ñuy waxee ñii naan dafa bëgg ñu koy ay chocolat ay chocolat yu ñu def ay mante boobu nekk si bouteille te muy verte dañu koy jaay ci boutique bi moom la ñuy jël ak chocolat mélangé ko juste pour le gars parce que da koy utiliser ak ñoom. kon yaakaar naa ni dans 7 minutes de vérité muy 7 minutes de dëgg ñoo déggandoo audio bi nga xamante ni Adji Sarr séqoon na ko ak benn nit fii ci Sénégal bi mu ko woowee téléphone di ko expliquer ay problème ci biir loolu nag wax ak tontu la woon Adji Raby Sarr mu doon expliquer kaam ni mu demee bi mu ko expliquer waa ji waa ji dafa dem ba ci biir dagg moom voix am génnee uniquement voix Adji Sarr mais bés bu waa ji ñemee génnee benn discussion boo xamante ni moo ak Adji Sarr séq nañ ko ba ñu dégg ci baatam su boobaa dinañ leen tegal vidéo bi nga xamante ni baatam mi ngi ci moo tax ñu tegal leen Adji Raby Sarr lii la ko wax bi mu ko waxee lii mom audio bi jox kep ko xamanteni militant nga muy am nga ko muy Molla Morgan am nga ko mais batay ji fit pour tek ko li wan askan bi que di live di sonal alors que Adji Ousmane Sonko la porté plainte Ousmane Sonko mo un ngeen limu jour la fa

jour J2, 7 minutes de vérité de grec au colal, lal de galaloko, corps bimoko obligé ak Seydina Tange tangent, sur le canal 33 l'air TV